إلا الله لا إله إلا الله زادت دارين والرعد تبارك Cheikh Ibrahima Fall yaa tax tu tabbi aljanaan anu xamal nun doomi jaara Poroxaan yaa nu xamal nun doomi jaara Poroxaan Cheikh Ibrahima Fall تبدي الجنات يوم الخيام تبدي الجنات Cheikh Ibrahima Fall yàlla gërëm la ba la sañ la neex jar nga kañ la bur làq ku nooni faal daloo Cheikh Ibrahima Faal yow mi fanaane mulku mbaate balakoot fajal nu sunu aajo yi yaay borom mi mboot Cheikh Ibrahima Faal Faal Faal yaay ñag bi Seexu Bamba ñag murid yi murid yi murid yi waajul la ñag yàq yaa moom ruu yi yaay ñag yaay xubam na ñëpp murid yi murid yi waajur la ñag yàq yaa moom yaay ñag bi seen xubam ba ñëpp murid yi waajur la ñag yàq yaa moom Seex Ibrahima Faal

jëwriñ addina ak alaaxira waal yow ku lay bañ bañ yow la nu jébbal la nu jébbal nu mbir ca bis baa faral bis baa faral bis baa faral bakkaata wan nu ban ban yow faal faal am yàlla moo gën moo gën am leneen lu dul moom moo tax nga am yàlla di ay koom am da gërëmal yàlla ആലംഗിരിയാ I'm gonna make bi yaay mbër bi yaay mbër Cheikh Ibrahima Fall Fall Fall Fall aljana yakam dina la sawa kër kër kër yomal xiyaamati sëriñ bi yaay yaay तुझा yawmal xiyaamati faal dawal nga tuub ko nga tuub ko yow faal faal xetili mboolem kuy jullit kuy jullit moo tax nga ñëw jamono yow yamook dara Cheikh Ibra xal yoon wu leer ba diina am ndam am ndam ku tele julee ka werd ka werd war na laa gëm Cheikh Ibra Cheikh Ibra xal nga yoon wu leer yoon wu leer ba diina am ndam am ndam ku tale julee ka wer julee ka wer faal war na laa gëm Cheikh Ibra xal yoon wu leer yor ba diina am ndam Cheikh Ibra xale nga yor wu leer ba diina am ndam Cheikh Ibra xale nga yor wu leer ba diina am ndam Cheikh Ibra xale nga yor wu leer ba diina am ndam ku tala julee ka wer na war na laa gëm xemem la xemem la moo tax ma doon sa baay faal faw ci baatin baatin suturaal am naa ba mu di di jariñu di xam naa ni tax ba mu di di jariñu di jariñu ca say xubam ca say xubam faal ña ne faatu xamuñu tu xamuñu te wal gi tuuru na tuuru du jeexati jeexati ku lekk naan dem man de war ko set yow xatal nga say noon yow faal xatal nga say noon ku la bañ ju yaatu ci àdduna ji muy xëy faal faal Seydina doon jaay Ismaayil la Cheikh Ibrahima cheikh lëkk la bir yëpp di leer ñoo xam la ñoo xam man sopp si xibra man sopp si xibra man sopp si xibra amaana waay weddi ko waay weddi ko ngir aw lii doy naa gëm xar baax xar baax boole neex a neex yàlla neex Rasuulu alayhi salaam aljana ubbi nay buntam teeru ku yàlla baaxee fa gis lu taaru yow faa nu jàmmu junu dul tàggooti yow mi jilim jamal ja dix ja foor foor صديق رفيق أحمد لقنا يوم البمبرير بمبرير نياك نياك أنا على آخرة كم بجك كم بجك كم بجك ولا غنم ما ونو يونو تربية تربية تربية wareef na laa sant li war ci rabbi bul ko nag yow du nu gëm Cheikh Bamba doon Rasulullah ma yonen ba bul ko nag yow nu torox ci dunya dunu xam yàlla ba daw kon yaa lamp faal Cheikh Ibra rafet nga jëf te sell xam naa xam naa waaju la xam tabbi ëllëg aljanna xiin xiin rafet nga am liggéey ba wuy sa baraam baraam Cheikh Ibra baal gi naane yow amoo maraam maraam Cheikh Ibra raw nga rijaalo la yey rawan yàlla ya faal dañuy njëkkante njëkkante Cheikh Ibra Cheikh Ibra yow atte ya doo ca bokk yàgg sa waa kër yàgg sa waa kër Cheikh Ibra Cheikh Ibra atte ya doo ca bokk yàgg sa waa kër yàgg sa waa kër Cheikh Ibra Cheikh Ibra atte ya doo ca bokk yàgg sa waa kër yàgg sa waa kër dah coba dah coba yang sewa kerak lu coba lepas lem du feok suker suker agenga agenga wan ganu yan wi taxadem ci yalla ci yalla fal wacc nga fi doy naayam naayam amna lu war bay faa te moo di déglu ndigal bàyyi tere bàyyi tere sax ci lii duñ la bugal duñ la bugal àjjana néeg la buñ tëj di déglu ndigal bàyyi tere caabi ja caabi ja Cheikh Ibrahima xeewal yow faal yow faal allahu akbar yàlla moo la jox lii la jox Cheikh Ibrahima ku la gëmul do am tuyaa bay julli bay julli am nga maqaamaatu maatu rijalulaay boole nga seen ngeneel ya hindalaay aw nga fu kenn dootu fa aw fa aw ci duniya moo tax nga am lu kenn kenn amul cëmbëri yaw see xibra see xibra andil nga nu yow see xibra lu dul jeex jeex adna alaaxira day ji ku ne seex moo morom adna morom alaaxira borom Tuubaa ko wax di bun sa xiira àgg nga àgg nga àggale nu rikki moom faal wa mat nu yóbbu aljanna ca booba bis atan nga ñëpp faal yow la yàlla jàppale lu yàlla sunna bi yëpp yaa mën a séddale séddale Cheikh Ibra adiya yaa ko mën a bay di ko joxe te soxla woo ca dara ca tax yaa tax yaa nu mën a lim file mën a nu fa nu jëm fa nu jëm yaa man kile mottali mëneen fu laa jëm fu laa jëm yanu defal saadatu daarayni sunu Sëriñ Tuubaa mu am yow ku la gëm addina ji coonaam jeex na jeex na yow man xiyaam xiyaam ci loolu neex na lu neex na Cheikh Ibrahima yow ku la gëm julli ne julli juróom woor weeru koor faal añ naka yow amoo moroom déglu bëgg mu jàng moo tax ndax xam nga ku dégg ni mu jànge xam ne fonk na waa Kayaar te loolu lépp li ko waral mooy moom dafa fonk taalibe yi sëñ Tuubaa yi ndax ñii fi teew ñëpp amu ci kenn koo xam ne teew nga fi lu dul ne bëgg sëñ Tuubaa moo la fi indi moo tax ma bëgg ku fi teew nga wax jërëjëf sëriñ Tuubaa dégguma dara de ñi ci biti damaa bëgg mu riir nañ ko teeylu jërëjëf sëriñ Tuubaa jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf sëñ Touba day maye bayre jërëjëf sëñ Touba day guddal fan jërëjëf sëñ Touba day maye xaalis jërëjëf sëñ Touba day tax a dem àjjana jërëjëf sëñ Touba day tax rafet jërëjëf sëñ tubaa day tax nga saf fa sa borom ndax sëñ tubaa moo njëkk a wax ni yàlla moo ma ne jërëjëf. kon sëñ Xaadim Gueye mii moom sëñ Tuubaa lañ ko tudde sëñ Tuubaa di ko liggéeyloo ci xasaayid yi sànq wax naa ko jàngkat boo dégg ñu di ko tudd ci jamono ji ci ginnaawam la lukki ko te loolu loolu la yàlla dogal bu doon day am ruwaa ma ne mooy ruwaa bi loolu la yàlla dogal man nag li ma bëgg bariwul li ma bëgg bariwul juróom fukki nit laa bëgg li fi nekk mën na ñaar téeméeri nit mais juróom fukk laa bëgg ku ne jox ma ñaar téeméer addi sëñ Touba ma jox ko ko ngir xaside yi ku ci bokk nag bàyyee ak sa bopp sëñ Touba ndax man fayuma kenn sëñ tubaa mooy fay te ku ci joxe sëñ tubaa gis na la nga xool mu leer leen sa ñaar yi yaa ko moom nga ne ñaar yi jox naa ko sëñ Touba nga xool bàyyee sa bopp sëñ Touba nga xool yaa tax nu am taalu be tey ñi raam te شغراي مفال يومي لقي البم رزقو سكر في الليل والنهار تقول يا أكسكر أكسكر شيخ إبراهيم يا لمبا يا نجي يا بولي يا آجي يا teel naa jàng alxuraan mokkal ko tafsir ko biir ak biti yàlla may ko Cheikh Ibra muy jàng ak jàngale ak di taalif balaq xam-xam yépp nekk xaarif mu dem ba jeexal xam-xamam sariya sariya salmaasi tafaal amul tariixa mu ni àggul ci man laa àggale mu li saxaar ñu war ko bari may séddale mu di ko wër ko jox ko léppam dal ni ko yàllaa ngi bu kenn na xamu ba mu dal ni wër naa ko mboolem asamaaw ak suuf yi gis naa yàlla daw si leen gaaw mu ni ko neel ci yàlla ak sariya ma yor liggéey bi lépp ak aqiqa jaaraama maam Cheikh Ibra Faal sëriñ Saaliw def leen nii nu màggal sëriñ Saaliw sëriñ Saaliw naa wursu yow xamal xamal xamal sunu cari weet xoli weet daara yi kari weer weer yëgali day ji fépp weer weer kuy weti leeti ti amatul amatul miskini day ñëpp ngi jooy jirim yi ak faqiir yooy yooy gone yi ak mag ñaawaa ngi jooy jooy ku leen di woo di woo di woo amatul amatul Serigne Saliou Sëriñ Saaliw ni kasaas ñàkk nañ ñàkk nañ ñàkk ni jëleti waaja daan ja daan fo gone ki tam taman taman aduna yaa ko mën a war xamoo ku waloor fi taxaw dëgg ko war dëgg ko saw melokaanam solo solo Cheikh yëgal nga noo sa dem gi daal jaaxal jaaxal yow lanu xam nga dem xanu nga dem xanu fu ñu jëlee te xel moo dal moo dal Cheikh Saaliw moo nu daa xamal xamal yàllaa joneen te nuy bégal bégal tarbiya moo nu ko defal nu ko defal kuy wóotu ki ci ni amatu amatu tijaan tijaan waxaadir sax ku mel ni moom amatul Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ba yéene yi mu am ci liggéeyal Serigne Touba yàlla na ko defee ni mu ko bëggee yàlla nañ ko ànd ak moom. amiin yàlla na fi yàgg nga yàgg fi nu yàgg fi barkeb Sëñ Bamba. Yang na la gerem Bamba geureum te geureum na barke khassida yi hmm. yàgg fi lol gay hmm. nek ci khassida yi rek muy nek badjena na jeuf ngeen mi noo sante bu baax te geureum te di len ñaanal yalla fu toll te diko sakku ci yeen sëñ Tuubaa mi nu boole liggéeyam bi yàlla na nu boole dimbalil boppam mboolem ñi fi dëkk ak ñi fi ñëw ngir liggéey liñ fiy sàkku si yàlla na leen ko yàlla yombal yàlla nooy liggéey bi bu baax ba ngeen jot ci ni ngeen ko bëggee barke borom Tuubaa ñu ngi nuyu kilifay dëkk bi yépp di leen siyaare ñuy daayira sëñ Tuubaa yi tàmbali ci kuréel bi nga xam ne ñoo nekk fii di daayira sëñ Tuubaa bi ne ci poor bi di leen siyaare bu baax ci seen turu jëwriñ di nuyu mbooleem yeneen daayira yi fi nekk yépp daayira maam jaare yi daayira sëriñ Fàllilu daayira sëriñ Saaliwu mboolem daayira yi fi nekk yépp ñu ngi leen di siyaare di beral ñoo Cheikh Ibra Diop mi nga xam ni sunu dikk fi tey jii moo ko sabab bokk ci jànkati xaside yi ma yàgg fee ñëw fekk si ko fi fekk si koo xam ni xaside yi nu bokk rekk a tax dara lalu ko Euh, foog naa danaa ñëw ba yegg fii ba toog fii dara doo ko bàyyi ko ci poos di ma fekk fii te def naa ko ay at bu ma dee jàng li may wax ne nañ ma ko jox mësu koo xam mosuma ko laaj benn dërëm waaw waaw waaw waaw mu ngoog ngoog ngoog waaw kon nag liñ bokk rekk am solo te bu may ñëw ni ma baaxoo di jànge ji fu ma jëm noonu la si jigéen ñi booyal naanu bay ba dinde